xalifa sëriñ bu Cissé nga xam ni sama kilifa la ci jataay bii du ñaan suñu boroom yàggal ko fi tamee ko ak wér way juram ak sama way jur dañoo jaxasoo woon bay lenn sëñ moor sax mos naa wax sama baay ne ko laataa muy génnaat ne ko kaamil bii may topp da dañu ko bis ni ki tey moo waroon a doon fukki fan ak juróom sama fukki fan ak juróom ci biir bàmmeel waaye kaamil bii may topp moo ma fi bàyyi woon moom moom laay xaar bu yàgg sëñ Mor wax na loolu sama waajur sëñ Souleymane Gaye ne ko li ma xamoon lépp wax naa la ko euh, ñaari lugg laa la jox toon muy luggug jaan ne ko jox naa la luggug mbàkke mbàkke ne ko luggug séeréer moo ci des bu ñu waree ma jox la ko ca ca weeru koor ci la sëñ Mor wàcc liggéey kon seenub jaxasoo noonu la demee woon kon moom sama kilifa la bu wér jataay bi ni nuyu sëñ Maxtaar Jenn nga xam ne ñoo bokk Cheikh Issa moom ndax soxna Faati Jenn mi taawub Cheikh moo jur sama waay jur man sëriñ Souleymane Gaye kon moom sama lépp la waa kër sëñ Fallou yi maa ngi nuyu sëñ Pambay mii may dégg tey tey laa ko ma sa gis nag waaye dañ maa wax ne dafa bëgg sëñ Fallou loolu rek tax ma koy nuyu ndax nit ñëpp a baax waaye yàlla dafa dogal mën sëñ Fallou moo ma ci gënal kon maa ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu sëñ Mbacke murit ak soldaaru Serigne Touba bii di Serigne Mohamed Samb ak sëñ Assane mi doon waxtaan léegi xam naa nag. dama koy sëñ Mbàkke dama koy def waxtaanu pël rek waxtaanu pël nag moom naga baax dong lay doon dama fas yéene sëñ Mamoune Lo thème bi ma waxtaan ci kennuk sëriñ Tubaa gi maanaam sëñ Tubaa kenn la loolu rek laa bëgg a sëñ Mouhamed sama nijaay maa ngi lay niiw bu baax a baax a baax ñun ay mbaakool mbaakool piir la ñu moo tax nu nit jàppee rek dañ koy xam kon maa ngi koy nuyu bu baax dama bëgg nag ñi fi teew képp koo xam ne sëñ tubaa da nga koo jàppe maanaam ku baax ku fi jaaroon noonu rek di liggéey ba am lim am yow man ngaa yeeweeku ndax waxtaan wi doo ci jariñu fi ma koy teg kay mooy fi sëñ Tuubaa gën a ñëpp mane fa ñëpp rawee fa ñëpp man loolu laay wax ndax ci àdduna bi muy ñëw fekku fi moroom tabim demee it bàyyiwu fi moroom te ne yàlla am na ci ab lim qul rab qul man rabbu la sab'i wa kon yàlla am na juróom-ñaari asamaan suuf yi ab lim lañ àjjana yi juróom-ñett lañ sawara yi juróom-ñaar lañ yonent yi xakadun lañ minal uluf téeméeri junni ak ñaar fukk ak ñeent lenn képp la yàlla amut ay lim mooy jëmmi Serigne Touba ji kenn la loo tax sun yaakaar yi tey ak dafa way Serigne Touba alaaji Mouhamadou Fadal dani yaa fa yaaraa iman misla cheyqi yow mii war ku mel ni sama sëriñ moom kenn rek ko mat sëriñ mooy sëñ Tuubaa ñu ne ah mun la bul dugg avion bul dugg saxaar bul sol dàlli weñ bul wal fas ñu ne lu tax mu ne mahlan mooy defal ndànk dalal rek ndax fala sa taraw sa bët du tege ci ku mel ni sëñ Tuubaa amul ci àdduna loolu la sëñ Fallu wax Cheikh Mouhamadou Lamine Baara borom guy mbind ak Mbakke Kajoor waliyu yàlla wax bind ci mbindam wax ni zaakal imaamu jan imaam du kii jiite ci jàkka ji buñ noo dee de imaam ji nga xam bu déparé wuti nguuruk yàlla ga wenn waliyu du sañ a raf ci lu dul ndigalam ku ko def ñu dégraté la doo dootoo bokk ci nguur gi imaam jooju la ñuy wax mooy Cheikhul Khadim zaakal imaamu maa misluhu ahadun nee na moroomu Sëriñ Tuubaa amut jërëjëf zaakal imaamu maa misluhu ahadun ndeysaan maa di sant jërë ngeen jëf waaw lu koy bañ moom mu wax ne daakal imaamu maa mislu ahadun waxaat cay bay bayitam ne huwa al imaamu alladi maa xaaba saailuhu fa saailu cheyqi yaxwi fawqa ma saala nee na mooy imaam ji nga xam ne boo dikkee ci moom soxla fukk doo fa waxuma la ngay sooy moom di bañ am li ngay bëgg waaye foo commencé àlla Sëñ Tuubaa saa soo soxlaa moom fukk téeméer ngay am xam nga lu tax loolu man jaa bil hasanati falahu ashru amsaliha la alquran wax ku góorgóorlu ba ni bëcc ci benn bu baax yàlla teg ca juróom-ñeent waaye fi ne li yàlla yi bari le bari le boo defalee yonent bi benn téeméer ngay am ndax yàlla day participer waaye li yonent bi bari le bari le boo jëfalee Sëriñ Tuubaa te lay gën a limoo ndax yàlla ci boppam day participer yonent bi participer Serigne Touba participer kon jëf ju dul neel mooy jëf ñu jox si Amadou Bamba Xaadimu Rasuul sallallahu alayhi wa sallam yaakaari jaam ñi nee na man bi may laaj yàlla yàlla joxuma li ma ko doon laaj dani daf maa jox li ma ko laaj jox ma lu ma ko laajut jox ma lu kawe la ma doon laaj wahabtali minka sublan faaqa masalati dani aataytani subla dani wa ma lam asali ñu ne ko ndax dañ ko koo laaj midi mu jox la ko une heure wala dañ koo laaj safar mu jox la ko gàmm mu ne déedéet heure bi ma ko soxlaa la ma ko jox wali taquudu suhla waqta talabi loolu dafa leer kon waaye am na weneen waliyu ci waliyu yàlla yi woo xam ne sëñ Tuubaa ko defar muy Cheikh Amadou Diaw paxa sultaan arifina billahi waliyu gosaas nee na sëñ Tuubaa moom daa jàkkaarloog moom wax ko ku muy dégg ne ko antal xadimul fardu di la yujmau wala yutanna bal gayruhu yujmau yow moom sëñ Tuubaa kenn nga doo musanna te doo jamu mooy kenn rek nga fard fard nga ci sa jamono waaye ku dul sëñ Tuubaa ci kursu bi nga bokk maa la ko wax bu fas yi déparé ci kursu fas yu gaaw gaaw bañ wàcce drapeau bi mu yegg fa mu jëm gaaw na waaye ci kursu bi la bokk ki jël ndaare li muy yéex yéex ci course bi la bokk waaye fas yi ñoom di ko andi fas yi ne kee du course ndax moo nu dàq daw mooy ka ca bokkut mooy Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul loo tax mu ne sabaqtu xayriya ilal dinaani mahan nabi na adnaani xam nga lu ma bëgg ngeen xam ko jàng dafa am xam li xew am jàng mooy jàng téere yi xam li ci nekk mën a firi mën a xupaate nangam ak nangam ku def lii dem sawara ñu ngi gars yi tiit nangam ñàngal yooyu bokkut ak xam li xew xam li xew mooy def ni Cheikh Ibrahima Fall def lam babul muridina monsieur Bigué Kumba Fall Amadou Fall Seer Ndiaye biram jëpp ma tengaay góor jëpp bàyyi laa la Fall maami Cheikh Modou Fallou Fall toxoran bombaan gi wékk wóolu gi daj dëpp gi maami góor ñi jigéen ñi jëkkëri góor ñi sëriñub sëriñ si taalibu sëñ Bamba bi yaakaar yi ku yàlla bind kam nar a taxe xam li xew mooy dajale sam njàng ab sa juddu ak sa jikko ak sa jom ak sa ngor dikk ne ko sëñ Tuubaa am loolooy xam li xew lii gura la guro moom baax na loolu ndax i màggal gi laa xam ni guro baax na sëñ fa dama may am ñaareel ci màggal gi gone gu toll ni man nga xam bi may gën a jamono sëñ du fa ci kanamam la ñaari soxna laa yoroon man ñëwuma kenn de kon xam li xew mooy jox sëñ Tuubaa sa bopp dama ni xam li mooy jox sëñ tubaa sa bopp sëñ tubaa dafa wax ni hasri ladallaahi fi yadi wa ma rumtuhu min malikin qaarabil ani sëñ maxtaar bay woow sun maam moo ko dégg Cheikh Issa moo ko firi waaw Cheikh Issa nga nu ko firee da baax ni koo yaakaar kamu yaakaar kooka kam yaakaar lañ koy yaakaare bu ñëwul ci Serigne Touba du sotti maanaam koo fi yaakaar kam yaakaar kooka kam yaakaar lañ koy yaakaare bu ñëwul ci Cheikh Ahmadou Bamba dama ni du sotti Serigne Touba mooy sottal mbir yi nañ bokk jaamu yàlla bu ëllëgee lu nu yàlla fayee nu bokk gis moo fi xewoon waaye lii ma lay wax Cheikh Baye Cheikh Mamadou Fadal képp ku ma sa wax ci kaw suuf ci ñi ma sa wàcc ci adduna nag laa wax dafa wax ni nii rabbi déggal wax ji waxuma la yonent bi nee ma de waxuma la kenn nee na ma sëñ Tuubaa daa ni amara kan rabbi rabbi yàlla yàlla moo ma digal bi an usarriha ma leeral man Cheikh Ahmadoul Khadim ñu mel mel ni lu jëm ci yàlla lay leeral sëñ Tuubaa ne déedéet yàlla nee na naa leeral man sëñ Tuubaa bi an na nii ximan wa malaasun wa mafsaun man làquwaay laa boo xam ne ku làqutu ci sama ginnaaw raw dégg déglu leen foofu ngir jëmi sëñ Tuubaa làquwaay laa boo xam ne ku làqutu ci sama ginnaaw raw sëñ Bay jaxat ne ko ngan yi mu ne ko man ku làqutu ci sama ginnaaw raw sëñ Bay Jaxate ne ko làqu nu nun bu nunu dóor tey ak ëllëg bu nunu dóor te suñ ko kit bu nu ko dóor te ko ko mit bu nu ko dóor bu nu gis ak lakk gu góor ne ko yeneen ba def na la jiba kon nag nu def faw wu jiba te bul nu wàcc bul nu ba def nu ku jub ku bari muur waaye mbakke boo nu def jiba na nga nu def jibay ngërëm yu fees a ak i ngërëm te fees a ak i dërëm te nga defal nu waay buur waaye déglu li sëñ Tuubaa teg loolu mooy responsabilité loolu bokkut ak ay caaxaan de responsabilité mooy kaay leen gaa yi dikk nga ni faman araada najaata fii kilta yi daaray ni fal yaluudu bii ku bëgg mucc adduna ak àllaaxira wéerul ci man tax toog na ca njaareem te njaareem sëñ Touba daa jóge Jolof 1912 le 15 janvier 1912 la yegg njaareem bi muy dem njaareem benn naar daal di way benn naar gànnaar way daan ne jikko yu baax yëpp tedd nga yëpp karaama yëpp wuti na njaareem ñu ne ko lu tax mu ne sëñ Touba jëm fa la lu baax jëm naar ba dani fa asbaha saytu lin njaareema muntalixan musqila innaka lin njaareema tantalixu sëñ Touba juróom-ñaari naar ko fa fekk ñëpp bokk ci surafa yi kenn ku ci nekk biñ dikkee ne Serigne Touba nun ab cër moom taxunu fee dikk nun bu dee baatin am nañ ko ba mu doy sëñ bi ne luy seeni tànk ñu ne ko dañoo bëggoon nga berndeel ñu juróom-ñaari nit sëñ Touba rayal leen juróom-ñaari xarit talaabiir kon bernde sëñ Touba ko man juróom-ñaari xarit talaabiir fees ko teg jël matum ngaañ ji teg ñu jafal mu tàkk ñu feesal leen jox leen ay saatu waaye kenn lakkalu leen ko dañ leen a bàyyi ñuy lakkal seen bopp di lekk ba jàgg sëñ bi ne leen ngeen ni dangeen ngeen am baatin ba wut leen ko fii ñu ne ko waaw waaw ñu bari baatin lañ sëñ Tuubaa ne wan leen ma ci seen baatin bi tuuti naar yi kenn ku ci nekk jug taxaw ñëpp xool la nga jël ndawal laxas ko ci sa loxo ba mu wër nga teg ko ci taal bi togg ndawal gi ba mu ñor ci sa loxo te sa loxo lakkut ñu sar xollee xam nga ni lii baatin pire la sëñ Tuubaa ne baatin la de waaye daa daan nañ ma jox ndogu ndawal ñu jox ko sëñ Tuubaa wuti taal bi taal bi fay mu ne ah kay nun Ahmadu noonu lay demee nun dañuy mucc muccal ku nu laal xamuloo ni sëñ ci tukki bi am na benn jigéen joo xam ne danaan jaay boppam foofu sëñ Tuubaa tolloon ku fa dee dañ lay lakk lekk la dañ lay lekk dañ lay séddale ci ay bool tandew soosu bi mu faatoo ndaw si dafa bañoon sëñ Tuubaa ba nga xam ni maanaam maanaam loolu noonu la demee woon amoon na menn mbaar moo xam ne saaru waañ la sëñ bi da cee mos a dugal ay yéreem bi mu dikkee mu fekk yére yi sëñ Tuubaa yi jël lépp sànni ngir noonu gum ko noonu bi mu faatoo nag ñu war koo lekk nañu ma baal ci waxi ni noonu lay deme sëñ bi ne tee ngeen ma ko jaay ñooña gise daane nañ ko ko jaay bu ko jëndee ñu suul ko bu guddee ñu dem soli bu ko suulee ba bu guddee ñu dem soli ko jëfandikoo ko ñu jaay ko sëñ bi sëñ bi suulal ko boppam ñu dem guddi jot ñu dikk sulli fekkuñ fa dara ñu tiit dem sëñ Tuubaa wax ko ko sëñ bi ne leen sama mbubb yi mu daan laal mbubb ya moo ko fekk foofu ramm ko ci biir bàmmeelam mbubbi sëriñ Tuubaa julli na jumaa njaarim bi ba génn sol ay dàllam bi muy dë bi muy dëpp am ko ko wëlbatil dàll yi tuuti ngir bu dikkee rek ni ñuy defal kilifa yi wëlbatil ko dàll yi ngir bu dikkee mën koo sol dem bi sëñ Tuubaa dikkee daan ana ko wëlbati sama daal yi waa ji tiit ne ko mbàkke maa ngi jéggulu de daa dafa toll nekk dañ la doon teggal coonab wëlbatiku bi sëñ bi ne gees na ko teggal nanu la ci coono adduna ak alaxira ci wëlbati ay dàll nga teggee ko ci coonab adduna ak alaxira loolu tax ñi xamoon sëriñ Tuubaa sëñ bay jaxate bi muy way moom dañu sëriñ bi kenn la déglul way woowu te seetantal ko sëriñ bi kenn la maasam mës la am bu yemoon foofu dañuy xalaat naan deux mille dix neuf ak deux mille vingt ak vingt deux mën naa maasam am mu ne tadu am kon jeex na ba nay tukki maasum sëñ Tuubaa du am daan ne moo jiitu sang ya des fois dégg ak yi nu gis daan ne mboolem sëriñ bu ko def maasit nag ku jàpp ni sëñ Tuubaa sama morom la da ngay indi ñaar teg ci taabal ji mboolem sëriñ bu ko def maasit na sàkk ku mel ni seex ak ay Ibra Faal ak ñu ne ku mel ni Ibra Faal mën ta am mu ne des na ak Ibra Faati borom bay teeg maqaama bàyyi moo aw bal ak Cheikh aw la cer na ko jiitu woon fa Ndar dem fay niroog gaynde gu ngar tàngoor fa aw tàngooru tar ñu naan bu dellu nañ ko kar ba mu demee Bamba ni ko doo seen morom wane nga ko lan ma waxoon fàttewuma ko ci sama wax xam nañ ko sëñ Moussa Ka daa way ñaari bayit yoo xam sëñ Touba la ko sëñ Soxaybu sëñ Mor Mbay moo wax ci njaareem fekk am ko doon conférence ci ëtt ci ci penc mi di di penc di di di conférence ci penc mi ba fajar jot muy guddi gàmm sëñ Mor woo ko mu ñëw mu ne ko yow de bari nga xam-xam ndax yow mi mën a waxtaan ci sëñ Touba diir bu yàgg te du dégguma nga tudd Thierno ne ko sëñ Touba ak Thierno umpalante wuñ diggante bu toll noonu sëñ Mor Mbaye Cissé moo wax ni sëñ Touba première Thierno yi deuxième troisième kum neex nga def ko sëb sëriñ te muy dëkk. sëñ Touba sëñ Mor nee na sëñ Touba première Thierno yi deuxième troisième kum neex nga def ko sëb sëriñ te muy dëgg loo tax sëñ Moussa Kane yéem naa ko ngir lam xam ci man te waxu ko ak la mu xam ci ay araf te jàngu ko maam Thierno maam Thierno Sëñ Tuubaa da koy jàngal ab téere ba mu xaaj mu ne ko demal li ci des mbokk dimbalee na ko mbokkam te nee na lam ma jàngalul laay gën a dégg ci li ma jàngal daane moom Thierno nag yéem na ma ngir lim xam la muy bari bari xam na ni maay baharul ulumi maa sori wallaay ndeysaan kon nag mel na ni comme waxtu wi tey day loo xam ni ñëpp dañ cee bëgg a barkeelu may ma ñaari baati kaddu ak ñaari baati xasida ginnaaw bu ñu santee sëñ Mouhamed Sylla di ko gërëm bu baax a baax a baax damay waxtaan benn bis mu jox ma montre bu seer ndekete benn benn ñangee nag ci wet gi ma génn rek waa ji topp ma yëkkati xaw ma ñaari junni jox ma ne ma sëñ Mouhamed nee na nga daa daan woon rek nga jox ko montre bi te te barkeeloo kii daal di teggee noonu demal ak moom waaw kon ku yàgg. kii barki Serigne Touba Mbacke soldaaru Serigne Touba kii moom Serigne Touba rek lay wax kii kan la kii mooy kan kii mooy kan doom ju bàyyam gërëm bismillah sëñ doomam yëpp nanuy sëriñ ku sopp bàyyi Serigne Saliou Mbacke defal nu màggal sëriñ saaliw doomam yëpp na nuy sëriñ seexam yi raw na nuy sëriñ ay taalibeem doy na nuy sëriñ kuy roy na roy ci lii wax borom njaareem boo ko meree du bàyyi Serigne Saliou Mbacké kii ku ko bañ danga torox Serigne Saliou Mbacké Serigne Saliou boo soxoo di ko bindal mu soxoo di la dundal boo koy bayal di ko bindal mu sakk ñuy bay di la jox iniw xaatibu nasaratura dim lim ni ma maa ngi jëmaat ci Serigne Bassirou Gaye يا فادل البدل والخلاق يا من به فارق لي الإملاق وجدتك اليوم ولي رساق كان بما تنمو به أرساق محوتني ما به النفاق أحني مها وجاني النفاق ردت لي ما المستاخ زل عليك الأكرم الخلاق بك احتوينا ما له نستاخ صلى عليك الأكرم الخلاق أحمد جملة البرايا أحمد مدحه بس القديم أحمد إني على أحمد ربي أحمد فلن وخير القول إني أحمد ربي الإله والنبي أحمد وسيلتي له وإني أحمد